ak yéenikaay yi naka lañu ñu xëyee Euh, tey jii ci euh, aljuma ji ñu daal di koy dooree ak lii quotidien mi nga xam ni sax daanaka ci visite boobu la daal di xëy àddu ni Kër Massar euh, donc érigé en département ñu ne la stratégie la stratégie politique de Macky mu mel ni ab stratégie politique la rek boo xamante ne kii di njiitum réew mi di président Macky Sall taxawal na ko daal di jël lii di Kër Massar def ko ab département comme ni ko ñu bëri ci ñoom doon réclamer. ñu jógee ci lii quotidien daal di xool beneen yéenekaay euh, ci alduma euh, ji mu ji réew mi quotidien lutte contre les inondations 30 milliards muy fanweeru milliards yooyu nga xamante ni euh, daal di nañ koy génnee ngir rek dolli ko ci gestion des inondations waaye surtout nag foofee ci Kër Massar ñu ne rek ministre DG au fonctionnaires auditionné Kër Massar daal di nañ koy def département maire bi nag bi nga xamante ni moom moo féetee foofu ni Moustapha Touba Meng euh, démb moom euh, lu ne la fa daj surtout ci population yi nga xamante ne euh, ba mu fay romb daanaka dañ ko doon yuuxoo lu ne ñu wax ko ko le soleil yéenikaay ñëw ba tey ci visite boobee nga xamante ni moom la njiitum réew mi def ci Kër Massar di wax le rek ni am na ay mesures yu am doole yoo xamante ni jël nañ ko ngir rek mën mii foofu en tout cas doon loo xamante ni dinañ ko fa mën a saafara ñu jóge ci euh, Le Soleil daal di ñem euh, ci euh, tribune yéenekaay ni yi président ASEC ba mu fa demee dafa sol vestam plutôt sol li nga xamante ne en tout cas tenue la boo xam ni costume et amul lenn loo xamante ni jàpp nañ ni moom sonal na ko foofu doyul takkul looloo tax ñu ne yi président sec bu weesoo loolu ñu fësal itam li nga xam ni moom la fa jël comme ay mesures foofee ca gox boobu di Kër Massar. bu ñu jógee ci la tribune daal di xool Vox Populi ñëw ba tey ci déplacement bi nga xamante ni def na ko seeti euh, ña euh, am rek problème ci mbënn mi donc euh, fësal itam kàddu yu fa yu mu fa teg mu di le président ne peut pas arrêter le ciel maanaam li nga xamante ni taw la buy wàcc moom it du njiitum réew mi di président Macky Sall amul doole tee ko loolee la xamal li nga xamante ni ñoom ñoo di population bu féetee foofu l'observateur daal di ñëw ci tentative de meurtre bi nga xamante ni. moo naroon moo amoon fële ca euh, euh, voilà mais ay cimetière donc benn euh, ab ndaw su la ñu daal di rek surprendre ci benn abattoir au cimetière voilà abattoir sur le point de tuer sa de un an benn doom boo xamante ni benn at kese la am ki ñu woowee M Thiam moom dafa nekkoon koo xam ne dafa divorcé ancien membre donc gang d'agresseurs bu ñu sukkandikoo ci l'observateur wax ba tey ci enquête bi ñu xamante ni def nañ ko sur François Colline fantôme du palais loolu lañ ko tuddee fils de Jean Collin et honni par euh, Wade réhabilité par Macky doon koo xamante ni euh, moo di euh, nouveau secrétaire général adjoint bu présidence l'info quotidien ñëw ci ba tey kàddu yooyu nga xam ne président Macky Sall yëkkati na ko dem ba mu seetee waa Kër Massar di wax ni le président ne peut pas arrêter le ciel maanaam amul doole teel yi nga xamante ni moom moo di taw bi loolee le l'info quotidien xëy fësal tey ji ci aljuma ji ci xëtam bu njëkk ñu jógee ci l'info quotidien ñëw ci 24 heures wu ci lu mu tuddee catastrophe à l'horizon mu mel ni euh, ñi ngi daal di dëgmal loo xamante ni lu doy waar la jëmale ko ci filière bu pomme de terre fii ci biir réew mi anam yi nga xamante ni investissement yi mi ngi koy doxee ak yenn ci xaalis ak yenn euh, ci importation exportation yu ci am loole lépp euh, ñi ngi ci 24 yéene kaay indi na si ab jàngat bu yaatoo yaatu ci wàllum xibaar ngeen mën ko tijji ngir am ci lu leen gën a leer Dakar Times ñëw ci lu mu tuddee euh, li nga xam ni moom moo xew réellement ci lu ñuy tuddee les 766 euh, milliards de francs fa nga xam ni moo waroon financer euh, programme décennal buy xeex wàllum inondation fii ci biir réew mi toute la vérité sur cette affaire donc loolee la Dakar Times xamle indi ci ay ponk yu am solo ci biir yéenekaay bi les échos daal di ñëw ci li mu ne jiitum réew mi mënul euh, téye li nga xam ni moo di asamaan si donc euh, mu neen ni euh, Macky Sall dafay daal di wane rek son impuissance ñàkk doole bu mu am bu mu ñàkk doole face à bien sûr li nga xam ni ndogalu yàlla la loolee le les échos daal di xamle xamle itam li nga xamante ni moom moo di Souleymane Teliko la mu jëlee fële ca IGAG donc ba mu gannaaw ba ñuy tegee ay tuuma ci kawam suñu lamb daal di ñëw ci euh, Gris Balla Modou Lo ak Balla Eumeu Sène ak Modou mu nekk ay grosses recettes yu mu tuddee euh, voilà yu mu tuddee ay grosses recettes bien sûr ndax euh, jàpp nañ ni Gris Balla 80 millions la Modou Lo ak Balla 60 millions ak it Eumeu Sène Modou Lo Boy ak Lac 2 nekk 15 millions donc loolu lépp ay cachet yoo xamante ni jàpp nañ ni donc bu ñu ko taxawalee rek mu doon loo xamante ni affiche la bu mën a intéressé bu baax ñi nga xam ni ay euh, dañuy bëggee làmb bu baax a baax loolu moo nekkoon li gën a fës ci xibaar yi ak yéenekaay yi tey ji euh, ci aljuma ji maa ngi leen ko doon wax tout à l'heure que dañ fi fas yéenee dalal kii di Abdou Karim Gueye di Karim Xurum Xak fas yéenee waxtaan ak moom euh, ci fin de semaine bi comme nuñ koy